salaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala wajal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonentam bu tëdd bi ngi ndokkeel yëpp ñu mën a nekk ci nekk sa tur sa jëm day ji jiital nuyoo bi xalifatul am li tariqatil muridiya cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir yàlla yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér ak mboolem njabootu cheikhul xadim gépp ak mboolem cheikh si waaye noonu la ñuy nuyu mboolem kilifa turux fu ñu mën a nekk ci Sénégal euh, di ci jiital xaadimul umma cheikh Mamadou Mahi ibnu cheikh Ibrahima Niass saahibul fayda ya rabbani ngi koy nuyu di ko ziar di ko tatagal di ko màggal ngën gaar yi anam ndax de boo njaay gis nañ li nga xam ni mooy dëgëral diine sa mbokkum wala say mbokk jullit am xew-xew bu rëy boo xam ne ci diine rek lay dellu amal ko nga yëkkati teraanga yu rëy jël sa say mbokk say doom say jarbaat sa lépp wala ne lii kat maag yéen ñoo ko bokk muy teraanga yi nga xam ne da ko jébbal xalifatul am li tariqatil muridiya mu jëm ci bis bu màgg bi nga xam ne ci lañ jëm loolu moom ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax a baax waaye laaxar wa sikki amu ci ndax waajuram bu tëdd dedd ba Cheikh Ibrahim ku ne xam na alaaka yi nga xam ne amoon na ko ak ah njabootu Cheikhul Khadim gi ku ci mel ni Cheikh du Bachir Cheikh Modou Fadel Cheikh Modou Moustapha Serigne Mbacke Bousso euh, Serigne Cheikh Awa Balla moom Cheikh Ibrahima Fati di maam Thierno teraanga yi nga xam ne daan ko seq ak ñoom ci moo xam teraanga bu mën a doon ak Sëñ Cheikh Gaynde Fatma moo xam ci bis yi bànneex ci gàmmu yi ci màggal yi noonu la ko daan defee ci kër këri turux yëpp Sénégal kon sikk amul ne lii lum doon la ci ay wajuram ñu ngi ko ci ndokkeel di ñaanal ñëpp jàmm ñaanal réewu Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm ñaan màggal gi yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm li nga xam ne moo tax borom naan ko woote ko li ci rot ci yiw yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp bokk ko mboolem jullit fu jullit mën a nekk rek bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waa alhamdulilah màggal moom buñ ko déggee ci réew mi xel yëpp dafay dem Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moom bi nga xam ne moo liggéey liggéey bu rëy bi ba am ci may yu rëy yi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa may nag ko muy génn jëmm la woon joo xam ne jaamu yàlla jaamu ko te yàlla la woon nekk fi ak waajuram muy sëñ Mame Mor Anta Sali mu yor daaram di fa jàngale ci Mbàkke Kajoor sëriñ bi nekk fa ak i moromi doggoom ak i magam ak i yàlla sun borom mi dara tawul teel koo bëgg loolu baax mu yàgg bëgg wéet wéetal boroom di ko jaamu fépp foo xam ne dégg na fa lu baax rek mu feex waat teg tànkam sàkku ci lu baax muy ndolleent ci lim amoon ci lu baax jamono di dox di dox ba waajuram ba génn àdduna mu mujj amee daara ji bi mu ko amee nag mu jékki-jékki soppi doxalin muy mankat képp koo xam ne da nga fay ñëwoon jàng kese indi la mën ngaa ko waaye kenn koo xam ne jàng ak leneen bëgg nga ko mu yoonu yàlla wala am ci yàlla dara walla xam yàlla ci niñ ko mën a waxee wala aw ci siratal mustaqim bu wér a wér ñëwal ñu ànd ci la daara ja tas ñenn ñi dem ñenn ñi toog euh, comme ni mu ko waxee ci wax ji euh, ñi ci toog ku ci mel ni sëñ aadama Gueye euh, bokk njëkk ji jaayante moom ñu ko waxee ne awalu man bàyyi ni aadama Adama Gueye ñi ciy topp topp ci mu aw ci yoon boobu nag di leen yar ci ximma ñu nekk ca nit ñi di jógee fu nekk di bàbbeeku ñenn ñi di tas seeni daara di ñëw di def suluk ci jëmmam ji ci yoonu yàlla ba bis jot tubaab yi occident yi dugg suñu dëkk Afrique yi biñ fi duggee tàmbalee tas royaume yi di jël seeni biens yi ñu am seeni alal ak euh, seeni patrimoine ak seeni suuf ba yegg fuy nit ñi jàmmarloog ñi fi nekkoon mooy ñi jiitu woon sëriñ bi ndax ñoom la joor a ngi woon fi ci gannaaw gannaaw euh, Cheikh Omar mu ngi fi woon jàmmaar na ñoom ba ci ba ba nga xam ne moom ba muy taxawal xeex waajur Cheikh Ahmadou Bamba di Mamour Anta Sali bokkoon na ci ñaan nag moom ak waajuru Alhaji Abdullahi ak ñeneen ak ñeneen ñu gis ne kii kat moom nit la koo xam ne ku rëyu fit la te ñeme te gis nañ ni nit ñi fu ne ñu ngi fay bàbbeekoo di ñëw boo moytu nag la daloon wala ma ba jaxu ba doon doxal taxawal jaar woo ay mbokk jullitam ñu jàppale ko ci daa mel ni kat kii buñ ko seetaanee lu mel noonu dana ko fi taxawal kon ñu gis ne ay sos ñëw na ci koo xam ne xamuñ biiram xamaluñ ko dara ndax sëñ bi dafa doon koo xam ne dafa yàgg di beru ku yàgg di wéetal boromam la fu mu mësaa nekk rek boo ko fa nit ñi nit ñi dañ fa daan bàbb di ñëw ndax leerug yàlla gi nekk ci moom ak lañuy lañuy gis ci ku ñëw ci moom rek da nga wuteeg démb laata ngaa ñëw ci moom bu ko defee mu dandu wut benn barab bu fa nekkee moo war a nga gis daaru yi ngay dégg daaru salaam daarul Quddus dégg nga mi nan dégg nga yooyu ngay dégg toxu toxuwaat yi naan def moo ko waral. tubaab yi seeni pexe ak pexe kàccoor yi nga xam ne dañu fee nekkoon ci jamono jooju ne kii daal nañ ko tuumaal sosal ko am mbir jëm koo sakkal pexe ndax buñ ko defur du baax ñu daal di koy tuumaal nag ne moom kat dafa mel ni dafa ay ngànnaay jënd ko ngir bu tubaab yi ñëwee pour song ko. mu jàmmaarloog ñoom nga xam ne wax nañ ne bi mu déggee xibaar lu mel noonu sax dafa wërlu këram gi ah, ñu xoolal ko ndax pexeb seytaane du indi ñu indi fi ay ngànnaay di ko dóoral yàlla ci mbaaxam nekkate yàlla moom saa bu bëggee aw nitam dana ko indil ay nattu bu fekkee nit ki bëgg na di dagg maraati bi ngir yéeg ndax yàlla lim yor magasin am xéwal yim yor ak martaba yim yor dafa bari lool te nitam saa su ne lum ci am doyut mu am yum sàkku ci boromam boromam ne ko kat lii ngay sàkku ci man de mën naa ne waaye ci kaw dama lay teg ay nattu nga tegaw ko boo ko tegoo nag nattu li ngay sàkku ci man danaa la ko jox bisu samedi 10 août 1895 ci lañ ko exilé mu dem jaar dëkk yu baree bari buñ ko doon lim amaana duñ fi euh, fii la fanaan euh, limbar wari dégg nga Karambasa Daawme dégg nga fu ne mu jaar fa ba tubaab yi fii may wax ak yow ba jëmmi ba jëmmi tey jii mënuñ laa wax ne la dëgg-dëgg lii la leen def ba ñu exilé ko bi mu ñëwee nag ñibbisee mu toog fi ak diir bi mu fi toogee ak diir wax nañ ne ba 1920 am ñu ne 21 waaye ci gën a li gën a wóor daal mooy Talsy Sine li mu bind ci loxo boppam. mu tombé mille mille trois cent trente neuf ci hijriya mu ne man bis boobu nga xam ni ci la ma tubaab yi jëloon yóbbu ma sama borom kat dafa daan def bis bi saa bu ñëwaan day tegaat maanaam day fulaat li ma tegoon ci ay nattu ñu tegaat ma ko. ñu dem ba waxtu wi mu ne kat lañ la doon teg ci nattu di ko ful ful niñ ko def ko muy xéwal mu ne gannaaw dañ ko def muy xéwal kat lii kat yàlla na mu dellowaat cant gi sunu boroom ànd ko mbooleem jullit yi wala mooy ñooñam bu nee ñooñam rek mooy moom liñ jàpp ñooñam mooy képp umma islam yi rek fépp fu julli nekk rek yaa ngi ci biir mu ne bis bi nag saa ñëwatee na ngeen ma ci santale yàlla moo ne ana nu ngeen koy defee mooy nangeen di rendi di ko defee comme ni ñuy defee tabaski ndax tabaski dañ koo baaxoo bu jotee nit ñi di ci rey xar gi nga xam ne sun borom da koo digaloon sun maam Ibrahima njëkk mu koy reyloo doomam mu nangu nangu jëfe ndigal yàlla wecc ko ndax sun borom sun borom koo xam ne la ku bëri yërmande la saa bu la tegee natt rek peese la xool nga nangu rek day indi xéwal euh, ba yàlla indi xar boobu am ci mag ñi sëñ bi nag ci mbaaxam ak it sunna gi nga xam ne moom la koy dund nga xam ne mësta yokku ci sunna mës cee wàññi dara ni mu ko ci wax ji lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatu al-gharraa wa inni Ahmadu bi mu déggee am mag ñi ku ko ne xanaa mën nañ ne dañuy tabaskiwaat mu ne déedéet lool bu ñu ko waxee day dugg ci biddaa dee leen koy waxee màggal màggal nag buñ ko déggee mooy baat boo dégg rek am na jëmu buy tattal lii mooy lan màggal dëgg-dëgg euh, maanaam baat bi buñ koy xool ci arab mën nañ ne mooy shukru shukru lillah sant yàlla sant yàlla yi nag bari na ay xeet bari nit ñi sant yàlla waaye dañ ne ala taxdim mooy sukkur mu ne kon bu bis bi jotatee lu ci waay mën ci ganaar ba ci gëléem nañ ma koy defal jullul ma ko sant yàlla ah nit ñi tàmbale di ko def nga xam ne boo xoolee tànk yi nga xam ne moo am ci mu wax ganaar ba ci gëléem ganaar xar bëy dégg nga nag gëléem boo ko àddadee loolu la jox àddadu màggal dégg nga ñu tàmbali di ko def di ko màggal euh, waaye foofu tamit jar naa am taxaw seetlu ndax ñu bari dinañuy dégg màggal wala topp riir mi rek ne màggal dañuy dem màggali Tuubaa wala jàppee ko évêque wala jàppee ko mbir boo xam ne daal mbir mu xew la rek ñu koy def nii wala da dem lekk naan euh, solu taxaw ci jumaa ji fotowoog euh, wëndeelu fu ne nga taxawaalu fa dégg nga ñëwaat ne màggal naa déedéet sëñ Tuubaa bi ñu ko laajee ana nooy màggalee mu ne bi zikri wa halal nañ koy màggal ci di tudd yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di jàng alquran dégg nga di def ay nawafil jublu ci sant yàlla ak di jël loo xam ne lu dagan la di ko joxe di ko lele ngir jëm yàlla jublu ci sant yàlla ndax sant yàlla lu ama am solo la te da ngay dégg ci wax ji mu naan ixmalhu ala dawda shukra wa qalilan min shakur loolu sëñ bi bëgg xéwale doomaadama yi bëgg ñu sax ci jëriñ suñu borom mu bëgg ñëpp jullit yëpp àndandoo di sant yàlla moo tax mu digle loolu bëgg ñëpp fekk si ko ci loolu dëkk ci sax ci sant suñ borom subhaanahu wa ah biñ koy def noonu ci dundam bam jàll Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo ko njëkk wutu continuer di ko dundal ci nii nga xam ne noonu la ko sëñ bi santaane woon 27 euh, ba cinq bi mu fi jógee Cheikh Amadou wutu ko bi mu ko wutoo nag la woote màggal gi ne ah woote ko yàlla bu ne am nga bis boo xam ne saa bu ñëwee dañ la ci fàttaliku wala ñu fàttaliku ci jëf joo xam ne jëfal nga ko diine wala xeexal nga ko lislaam wala ci nga amee ndam walla ci la yàlla may daraja bu mën a doon muy ci yonent yi eh, ba ci awliyaayu yàlla yi mu ne sëñ bi nag bisam bi gën a rëy ci bis yi mooy bis bi nga xam ni ci la ko tubaab yi jëlee yóbbu ko te yóbbu ko ñu ko yóbbu si la amee mboolem xewal mu am ci yàlla mu ne la yàlla nag bis bi saa bu jotatee ñuy ñëw di dajaloo ci dëkkam bi di ko ko màggalal ndax amul lu gën a màgg Tuuba ci kaw suuf ñu koy màggal ba jëmmi ci tey mi fi jógee it ñi ko uutu di ko doxal noonu ba tey ji loolu dëgg-dëgg moo sabab màggal gi ñu koy def wala ku leen muy ñëpp rek di góor di jigéen kuy dem Touba rek nanga fexe ba njëkk nga sàmmonteeg war may diine sàmmonteeg war may dëkk ba ndax dëkk ba am na loo xam ne dañ ko fay tere muy lépp loo xam ne diine da koy tere rek dëkk ba da koy tere jaxasoo góor ak jigéen ñi ñu moytu ko ndax lu borom bañoon la borom muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu mësta nekk foo xam ne góor ak jigéen dañ fay daje di jaxasoo fu mësaan nekk rek utal nañ jigéen ñi ab barab utal góor ñi ab barab ñaarit am na yu bari yoo xam ne Euh, xëy na ñenn ñi seen xër ak bëgg te ñàkk xam li ngay bëgg lan la tax na ñu koy sos di ko fa def teeloowal ak diine doonul lu sëriñ bi gërëm doonul lu ñooñ diine bëgg muy ñëw ci jumaaje war a ñëw ziyaare wara a ñaanal sëriñ bi mooy jël ay dog sëñ bi bind fi ay dog yoo xam ne ay ñaan yoo xam ne ku ñëw barabam ni nga ko war a ñaanee nga ñaanale ko noonu wala bépp ñaan bu baax boo xam ne dañ ko ñaanal wàllu yàlla wala nitu yàlla boo xam ne dañuy ziyaare rawdam moo wala xasida tawasul nga yëkkati ko nga ñaanal ko wala nga def ay dog ci salaatu ala nabi nga xam ne lu mu am rek mu ngi am ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga defal ko ko foofu moo gën ñëw di raay ay bunt di raay xabru dégg nga ak di daw mel ni kuy daw safa ak marwa yooyu yëpp yàgg dañoo gis ci mbir yi ci télé yi ñuy sensibilise nit ñi di ko tere waaye loolu baaxut te foo xam ne da fa da fay dem di fa yokkoo walla di fa sàkku yiw walla di fa sàkku tiyaaba dem di fa jëlee sawaan bi dara jaru ko mooy ni nga xamee ne Makka képp kuy aji Makka am na ay charte yoo xam ne moom lañ tëral ni charte yi ci la nit ki di sukkandiku wala ci la nit ki di jaare ba ajam ñu mën koo nangu noonu la amee ci tubaal lépp loo xam ne day dugg ci bidaa wala mu dugg ci kufru loolu lu ñuy tere la ci dëkk boobu ku fay dem daal da ngay bàyyi xel daw yooyu ñu fay def nañ koy moytu raay barab yi amul benn njëriñ raay bunt yi santuñ ko kenn ku mën a jàng alquran lu mu gën a bari sàkku nañ ko xasida sàkku nañ ko salaatu ala nabi tur yàlla bu waaye mën sàkku nañ ko loo am ci taranga loo am ci alal nga mën koo def ci sëñ tubaa rek tax jëmmi yàlla ak sëñ tubaa tax def ko yokku rek nga ci jële ndax sëñ tubaa dafa wax ñaar ñu aju ci man buñ dëkkee kii di ko fonk kii du ko fonk saa su ne ki koy fonk danañ gis yokk ci moom lu uuteeg ka ko dul fonk kon liñ ci dégg mooy képp ku aju ci moom fonk du yam mukk ko fonkul waaye fonk bi ci nan ci sunna yonent bi sallallahu alayhi loolu daal bokk nañ ci liñ ci lancé message ak it borom oto yi daw ñu dal daw ndànk bàyyi xel fañ jëm bàyyi xel ne ay doomu aadama lañ yëpp ay boromi kër ay njaboot yëpp ñu bàyyi ci xel ñaan yàlla nangul ñu ko nangul ñu sunu màggal lépp luñ ci sàkku ñu bokk jullit yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke xaadim loolu daal am na luñ ci wax ci loolu